الثمرات دون لحو مفسدين محمد المختار لم يأت مثله وليس يدي مثل نعم سيدي بجاي سبيل نبينا محمد وشفت بربي عرش يا ياخد وما زال حبيبي رضا ذات حيدي بشارة ولإخراج تخصيصا به نص تقتدي mu ne sa maam daan noonu maam Cheikh Ibrahima Fall kon am nga maam ju baax am nga ndey ju baax waaye nag si jikko moo tax nit ñi ñëw mu jamaane daa wax lu am solo léegi dane fii ci Thiès bi mu dëkk am na fi woy waaye nag bariwul muy dem ba tànn ay demam nee na bu ñëwee ci yow jikkoo ko waral ñu ni fi ñu bàyyi ko muy ndakaaru ñu ñëw ba fii fekk si la Cees si jikkoo ko waral ndakaaru am nga fa woy waaye Cees am nga fa woy Touba am nga fa woy foo mën a dem am nga fa woy si jikkoo ko waral te fu ne waaye am nga fa wàccuwaay waaye li gën a yéeme ba yéeme mooy teraangay Médoune ci kaw sutura rek la koy def asgor boo ko teralee rek dang ko ter ko baye ma may la ca ñaari baat doguma la ñewal duma geewal de ñewal may nag ñëw ba ci mom rek ni ko ñoo ngi nii sëñ na so suñu waaw góor waaw góor waay lii mooy taw féex ku ko xool xulli ku ko gis do def nii da ngay féex rek borom Touba wax du taxaw di wax dëgg la kii mooy suñu suñu suñu kaw mooy suñu ginnaaw mooy suñu kanam boo sëggee mu ne la looy suñu gën loola manqué boo waaxoo mu ne la looy yàqam te xanaa da nga am pression boo toogee mu ne la lu xew lan la loo manqué manqué wuñu dara barke borom touba ki dañ koy ñaanal yokku de ak tawfiq mënu ma cee bañ wax tawfiq yépp sant nañ ko lii ca kanam rek kii day dund